dikk ci digle yi président Macky Sall jibal démb ca conseil des ministres ba mu sekkoon ak ki jawriñam le soleil xëyee ki xayma ñeel ndongo yeeg ña leen di jàngal ci école publique yaak privé ya le quotidien mel ni ku naan ñu bala nga ni naam ne fa ndax école yi moom bari na ay ndongo yu am jafe-jafe yi inscrire ca la ko waral mooy ñàkkum extrait loola di njeextalu gerew bi ñuy liggéey ci gox-goxaat yi nekkee waral njiitu kuréel gi ëmb way juru ndongo yi di ko ñaawlu ne seen doom yi fi mu ne jafe-jafe yu metti la ñu nekkee fii metti ci l'école bi la direct ne école bi ban jaaxle la toog la ko waral di ñàkkum jàngalekat ñàkkum table ban yu doy yéenekaay bi ne ci ay téeméeri téeméeri école it ndox courant ak wanag dara amu fa l'observateur booba jamono naan ñu déggoo amatul diggante Senelec mi yor courant bi di ko séddale ak i kiliyangam facture yi jéggi dayo yi bokk na ci li ko waral njiital Senelec di ca indi ay leeral ci biir l'observateur mi ñu yëgal ne it ay coppite bu nu maywul dana am ci assemblée nationale ndax taxawu mi nu seppi ci yeewi askan wi seppi gi nu seppi Ousmane a fiche de parrainage cour suprême ëllëg la ci àddu joxe ci dogalam réew mi quotidien xëy xamal ñu ko libération dëggal ko ba nuppi yëgal ñu ne démb it ca Sigicoor ay awkaay Ousmane Sonko dugal na nañu recours ngir dabu seppi gi nu ko seppi ci fichier électoral bi 24 heures ne Ousmane Sonko kay fi mu ne yoon la songu bëgg na nañu deltu ginnaaw ci ni ñu ko seppee ci liste électorale yi waaye itam àqam ak yelleef gi nu salfaañe ci wàllum parrainage bi ñu joyanti ka ca boobale jamono la ñu Les Échos di yëgal ne dakkal na lépp luy parrainage sàkku na ci militant yépp ñu téye seeni signature bañ a pare parrainé kenn ba lépp leer vox populi ne li leer kay mooy yàqalaate parrainage moom mënatul ne la ko waral mooy numéro yañ def ci fiche ya tax kenn mënatut a jaay mbaa nga maye parrainage lu dul ne dangaa jalgati yoon yoonu yokkute moom ci la candidat yi ne ndax yéene kaay bi nee na ñaar téeméer ak fukk ak juróomi candidat à la candidature xayma nañu leen démb te ci yokkula jëm ndax yéene kaay bi ne ba tey gaa yi mën na noo jëli fiche bañ na ëllëg la nuy déposé parrain ya ci conseil tax Ibrahima Bakhoum di ñaawlu ci yéene bi ne nu ñàkkalee fayda tey doon président président ci Sénégal ngir loola dakk nag bés bi ne ñoo ngi xalaat sax ci beneen seggukaay bu nu mën a teg ngir bañ ku jóg rek bëgg a bokk ci élection présidentielle parrainage bi di tax a bokk yéenekaay bi ne la muy jar cher na lool ci réew mi ndax lu tolloog téeméeri million daanu ko génne ngir defar fiche parrainage yi clé USB yeeg yeneen yenn ci ay candidat le témoin booba jamono ne ay dóorkat yu mag lañu ndax dañu naan samp nañu seenu ndënd jaaree fa di roñi koppar dugg ci ay chantage ba ci amee alal nu lewut la gaaya dañ fay jënd ak jaay boole ci sax di waxaale Hadjibou Soumaré moom wax na fi mu bëgg a jëme Sénégal démb la samp ndëndam ci élection présidentielle bi nu mal Vox Populi yeggee ñu ko jamono ji ñu laas di yeggee ay coppite yu am ci administration territoriale tukkee ci conseil des ministres bi président Macky Sall sekkoon démb ak jëwriñam Vox Populi ne ko joxaat ma ma wax la la fa xew bokk na ci Mor Talla Tine mi nekkoon préfet bu Ndakaaru ñu tabb ko gouverneur mu dem ca Ziguinchor les économies bu weesoo Mor Talla Tine William Manel def nañu ko directeur général administration territoriale Jean Bertrand Bokandé ma nekkoon ci administration pénitentiaire les échos ne wuutu nañ ko fa Amadou Ba de donte waxuñu ko sax moo wuutoo ndéegum Aly Ngouille Ndiaye ca bopp ministère de l'agriculture dolli ca ministère de l'élevage ak sport ga mu yoroon réew mi quotidien xëy xibaar ñu ko jamono ji ñu libération di xibaar ne Macky Sall yeewi na ay jëwriñam démb xamal na leen ne ci njeextalu ay bés bi ñu jëm dana def remaniement maanaam indi ay coppite ci gouvernement bi boobale gouvernement la tribune gis na ne dafa bàyyi commerçant yi ñuy def la leen neex ca njënd ak njaay ma waral njëkk yi yokk ba jaaxal askan wi yooye la njëkk nag yéenekaay bi nee na ñooy mbër mi nar a janoog Amadou Ba ci élection présidentielle bi nu jëm ca boobale élection la ca président Macky Sall bëgg mooy tabb Amadou Ba ca premier tour ba Sud Quotidien ne moo ndax jëmuñu ci ku kaw maanaam Macky Sall kurpeñ lay dugal gaay yi rek ñu këpp yëf ya jeex mbëkk mi moom daa mel ni waaju te jeex ndax libération nee na juróom-ñeenti gaal yu bawoo Sénégal yegg nañu Espagne ci fukki fan yi teer ak junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróomi nit bokk na ca ñoom fanweeri soxna ak ñaar mineur ak ñaar source a ni ko mooy yow xanaa yëgoon li am te di guléet mooy ñetti téeméeri migrant sénégalais yu yegg ca îles Canaries te ne woon ñoom ñëpp ci benn gaal yéenekaay bi ne lii mësta am te jaaxal na lool kilifa ya laas moom li ko jaaxal mooy li subbiru bay liggéey ca banlieue bu ndakaaru te mbënd mi waral ko yéenekaay bi xëy di ci artu jamono ji LSDH Ligue sénégalaise des droits humains di artu ca la xew ca ndargéej di gaayu ay taalibeb sëriñ jàpp dóor ba nu nooy ñuy sàkk ci nguur gi mu dakkal lu mel ndax lu mën a jur jéyal ak fayanto yeewoo Paris ñoom démb daanaka dóoruñu fayewuñu toroxal dëgg la leen Newcastle def ñeenti bal ci dara réew mi quotidien yeggeenu ko yeggee ñu it jël gi sunu gaynde yi tëx yi am ca championnat du monde ban doon jongante ca tiro bi la ñu leen dóor réew mi ne dóor Égypte jël médaille de bronze bi mooy li ñu bëgg ca jongantew ñetteelu place ba stade moom gis ne Mendy ak Onana place ba newoon newatun fa ndax ñaari ponkali gardien yéenekaay bi nee na duggal leen lu jafe woon la waaye seeni caax fi mu ne moo raw lantinoor ci gëtu yéenekaay bi jeexal